asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam euh, soxna Fatou ma am lu ma la bëggoon a laaj du jëm si wàllu fiq su ma doon julli te mokkul ma fàtte maa ngi nuyu mbooloo mi di ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant waa euh, fàllu booy julli te mokkaloo faatiya may nañ la nga jël téere bi jàng ko mais boo paree danga war a dem jàngi faatiya parce que julli mënta wër sans faatiya parce que faatiya farata la salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sant. dox ba mbokk bi ñoom maa ngi la doon laaj bu doon julli mu doon julli suba fàtte xunóot nan laay euh, maaleykum salaam maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant booy julli suba nga fàtte xunóot dara du la ci war parce que sunóot du sunna bañ koy sujootal sunna ngënal la euh, te ngënal kenn du ko sujootal donc boo ko fàttee dara du la ci war merci. asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu seen tur ak seen sant euh, mbokk mi maa ngi lay laaj si wàllu fiq dama doon julli tisbaar ma doon sujjóot ma fàtte deuxième sujjóot bi léegi lan laa war a def. Euh, jërëjëf maa ngi lay fay yow mbokk mi léegi boo doon julli fàtte sujjóot sujjóot farata la da ngay sànni ràkk boobu léegi boo paree nga sujjóot baax de salaam ndax dafa am loo yokk si julli gi asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi sargal sama naataango yi ci question yi ñuy pose man nag sëñ Basir dama doon la laaj lan mooy tarixa cosaanu tarixa jërëjëf. jërëjëf soxna Amina luy jàng ci wàll cosaanu tarixa bëri na mais mën naa laa tenkal yenn point danga war sax ci alquran ak sunna bàyyi topp bida bàyyi bàndeex ak saxal werdu salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk si tur ak sa sant euh, sëñ Xaadim maa ngi lay laaj ndax mu ma liimal ñeenti noonu doomu aadama yi jaajëf soxna Kumba arab mu ngi dund si baat bi ñuy wax nashad mooy nafs nga bañ a bakkan ak seytaan nga bañ a topp seytaan ak mooy bànneex nga bañ a topp bànneex ak dunia àdduna mooy nga bañ a àdduna asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant sëñ Mbàkke maa ngi lay laaj lan mooy jihaat bi war a njëkk ci doomi aadama salaamaaleykum maa lay fay euh, nit euh, jihaad bi mu war a njëkk def mooy jihaadu nafsu ndax bakkanam mooy noonam bi gën a mag ci noonam yëpp moom la war a njëkk def pour mën koo not ba du ko yóbbu ci lu warta def wasalaam sëñ Fall yow mi ma laajoon ci wàllu fiq maa ngi lay dellu di la laaj ci wàllu siira di la wax ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxnaam soos di doon wax soxna Xadija ñaata doom la amoon ak moom ndax mën nga ma leen a tuddal. jaajëf soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na juróom-benn ak soxna Xadija ah, ñeenti jigéen ak ñaari góor jigéen ñoo ngi tuddoon Fatima Roqaya Zeynab ak Umu Kalsum ñaari jigéen ñoo nekkoon mm-hmm. ñaari góor ñoo nekkoon Fatima Abdullah yonent bi salallaahu alayhi wa am na beneen doom bu mu amoon nag soxna Mariatu Xibtiya euh, moo ngi tudd Ibrahima. salaamaaleykum mbokk yi euh, sëñ Omar yow mu ma posé woon question ci wàllu fiq maa ngi lay euh, posé question ci wàllu siira yonent bi ba mu nekkee xale lu tax mu jafe woon am kum ko nàmpal ba à la fin alimatu soxna alimatu jël ko nàmpal ko waaleykum salaam soxna Ndeye yonent bi sallallahu ba mu ba mu ganesee àdduna dañ ko ba mu ganesee àdduna dafa nekkoon ak njirim waa famille amuñu woon alal bu bëri loolu taxoon mu jafe woon a nàmpal ba mujj gi soxna Alima mujj koo jël nàmpal ko ngir yàlla kese tax salaamaaleykum mbooloo mi yow sëñ Modou mi ma doon laaj ci wàll fiq maa ngi la bëgg a laaj ci wàllu siira yonent bi salallaahu alayhi wa at bi mu àdduna at boo am na lu xewoon màkka ma bëggoon nga leeral ma ko waaw mbokk mi maa ngi lay fay euh, soxna si euh, at bi ñu ngi koy tuddee amul fiil muy atum ñay parce que dafa amoon benn buur bu mag bu tuddoon abrahat bu tabaxoon benn kaaba comme bi nekk mag waaye kenn daaw fa ñëw moo taxoon mu jëloon décision pour dem Màkka pour toj kaaba gi waaye malheureusement euh, mujjul àndu euh, boo bëggee lu la gën a leer mën nga dem si alxuraan nga seet si saar bu ñu naan alfiil muy alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi asaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim teren abaabila tarmihim bi hijaaratin min sijilin fa ja'alahum ka'san ma'kuul asalaamaaleykum mbokk bi ma doon laaj ci wàllu euh, cosaanu tariixa maa lay laaj ci wàllu yar ak teggin nit naka la war jëflante ak ay waajuram jërëjëf sëñ Bachir nit ki doomu aadama bu nekk war na am yar ak teggin rawatina ki say ñaari waajur parce que doomu aadama bu nekk war na jox respe ci ay ñaari waajuram ndaxte ñun ay ndaw lañ te kon war nañu mën a amal teggin ci suñuy waajur bokk na ci sa waajur bu lay wax nga déglu ko ak teey ak teggin bokk na ci sa waajur buy wax mem bu lay yuuxu sax bu la mettee bu ko fësal ci sa kanam ndaxte ka dañ naan al jannatu taxta aqdaami al ummuhaati suñuy àjjana mink suñu suufu ñaari waajur jërëjëf asalaamaaleykum mbokk mi maa ngi lay laaj nit nan la war a doxalee ci biir nit. Euh, asalaamaaleykum salaam maa ngi lay nuyu euh, nit soo àndee ak ak boroomam jàpp comme boppam soo àndee ak mag da jox respect soo àndee ak xale da koy yërëm di ko jox ak conseiller lu mu war a def ak lu mu war a bàyyi asalaam. Euh, salaamaaleykum soxna Aida dama laa bëggoon laaj euh, nit ki kan la war a mu doon xaritam. maaleykum salaam sëñ Mbacke nit buy tànn xarit day tànn ku am diine am yar te nite ndax olof Njaay nee na ku wax ma wa wan ma sa xarit ma wan ma wax la ki nga doon.